poverty, on court, whereby one, one idly sits by, hoping that good fortune will descend from the heavens without using one's God-given talent and energy to work and improve one's livelihood. What we need today is the change of attitude from complacent and dependent mindsets the more forward-looking and achievement-oriented dispositions. We in the Gambia should be very grateful to the Almighty Allah for the peace and tranquility that prevail in our country. A divine gift we must at all times endeavor to jealously protect and defend as we strive for greater prosperity for all Gambians and non-Gambians in this country. Finally, I have the greatest pleasure and privilege to once again wish you all a happy Tabaski. Dewe nati, alamande nabola jarita, yala taon emwori, yasami madban, adna waga khalle koyoyi, jeka ulatu mata yeti blind. Ajarama. Thank you for kind attention. Assalamualaikum, suñu mbokk yi ñoo seetaane jaate ñu ngi leen nuyu nuyu fati ne indil leen kàddu yi tukkee ci his excellency président chef professeur docteur Talla Yahya Jammeh Babil Mansa mu aju nag ci feet gu mag di feeti jullit idul adha ñu gën ko xamee ci tëbaski li mu dooree kàddoom nee na bisimilah rahim di sant tudda turu borom bi subhanahu taala yéen mbokki jullit yu góor yu jigéen yéen mbokki Gambia sant ak ngërmande mu ngi delluwaat ci borom subhanahu taala ci gannaaw bu ñu ubbilee bunta ñu mun a euh, mun a ànd ak jullit yi ci àddina sépp ngir màggalaat feet gu mag di idul adha ñu gën koo xamee ci Gàmbi fii ni Tabaski ci bés bu màgg bi bu gannaaw pour jottali nag su may ngërmande yoo xam ne ma ngi ko tubee suma xol di ndokkeel euh, di def itam ay ñaan ci borom subhaanahu taala mun nangu lépp loo xam ne lii def nañu ko ci lépp loo xam ne lii def nañu ko ci lu baax ak jébalu suñu borom ci borom bi subhaanahu taala yéen mbokki Gambia gannaaw boo xam ne bi nag xam nañu ne nag feetuk idul adha daf ñoo fàttali yonent yàlla Ibrahim jébbaloom ci borom bi subhanahu wa taala ak doxal ndigali borom bi pare nag pour eh, benn doomam bi nga xam ne bi moom la am di Ismail ci loolu wane na nag ki cofeel ak itam dellu boppam ci borom bi subhanahu wa lii nag eh, bokk na ci li nga xam ne moo di santaane borom bi eh, ci yonent yàlla Ibrahim gannaaw boo xam ne bi nag nekk na pour seet ngumam fan la toll ci moom ci loolu nak eh, ñu ngi gën a fëddali lépp loo xam ne li moo di li ñu war a jàngee ak yéene yi nga xam ne moom ci ngëm ak itam ndigali sa kilifa rawatina ndigal loolu nga xam ne yonent yàlla Ibrahim dégg na ko ndigali borom bi subhanahu wa taala bee bu garee nag doomam bi nga rek la di Ismail eh, lii nag moom mandargal li nga xam ne moo eh, idul adha di tabaski yi loo xam nak nag jàngane yi wane nañu itam nag julli di war nañoo nekk noo xam ne julli doon jamono bu nekk di dégg ndigali borom bi subhanahu taala di toppa itam li nga xam ne moo di santaaneem di bàyyi li nga xam ne moo di li mu tere e, ci loolu nag e, julli dëgg-dëgg day warta e, dencal mbokki jullitam mbañeel ci xolam wala itam di ëgati fitna di ko ko teg wala itam di jël bakkani moromi jullitam ci loolu li nekk na loo xam ne nag pour musal ay bakkan dina dimbale ñi nga xam ne ñoo di ñu ñàkk ak ñi nga xam ne itam ñoo am coono mun a jëriñu ci li nga xam ne moo di xiwalu borom bi subhanahu wa taala gannaaw boo xam ne nag dañoo màggal li nga xam ne moo di utaxa alsa ren ji di tabaski ñu fekkee itam mu dëppoo ak lépp loo xam ne lii moo di fitna yi nga xam ne mu ngi xew ci yeneen i réew ci àddina si ak itam jàngoro yu bon yooyu nga xam ne moo di jàngoro Ebola yëngatu bi nga xam ne moom la yëngatu ci Afrique sowu janta ak itam réew yu métti yi nga xam ne nag réew yu teguñu ko fenn fitna yi nga xam ne ñu ngi ko teg ci ay nit ñoo xam ne ñu defuñu dara ci ni àddina si yëpp war nañoo fàttaliku itam eh, ñi nga xam ne ñoo loru eh, ci fitna yi ñaana leen ci suñuy eh, feet gi ci borom bi subhaanahu wa taala mu indi nag xiiwal ak naataange teggi leen bépp a coono boo ne bi am nañu ko muy fitna wala muy jàngoro yéen waa Gambia feetuk idul adha di tabaski nekkul rek jamono mbégte ci ak suñu njaboot ak suñuy xarit waaye nag beneen feet la goo xam ne gii daf ñu wane wan pour nag ñu dé ci borom bi subhanahu wa taala comme ndigal li nga xam ne moom la joxoon Ismaïl eh, maanaam Ibrahim bàyyi xel itam ñi nga xam ne ñoom la eh, ñoo néewle nañu fàttale ko itam bàyyi xel séddoo ak ñi nga xam ne eh, yàlla jotul seen loxo jotul seen gannaaw ko defe nag ñu mën a bànneexu ñoom itam ak li nga xam ne moo di feet gi ci idul adha ci yeneen i kàddu pour nekk nag lu baax def lu baax ci ñeneen ci bët bu set war naa doon loo xam ne lii dafañ ko saxal ci suñuy dunda ci feet gi nag maa ngi ab eh, sàkku itam ci ñi nga xam ñoo di waa Gambia ñu yëg bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo fas yéene eh, taxaw ci wàllu islam te itam nekk ñoo xam ne ñii dañoo sol mbubu islam di def nag ay jikko ju eh, ñaaw a ñaaw ci suñu diina ji maa ngi jottali itam suma ngirmande ci yéen waa Gambia gannaaw boo xam ne ak jullit tigi ngeen maa ngi am mbégte di wane itam suma puugare ci réew mi nga xam ne moo di Gambia nga xam ne nag moo di réew nga xam ne moom rek moo fi am nag muñalante ak fulalante ci wàllu diina ak ci wàllu ngëm amul nag benn xaajale boo xam ne bii e, mun naa am ci fànn gi ku defee nag fii nekk nañu loo xam ne wane nañu e, ngeen mande ak jàppalante bu baax a baax kenn ku ci nekk wala groupe bu mun a doon e, ci diina bu mu mun a nekk dimbalante bi nga xam ne moo ci war ak mbokk gi nekk suñu diggante. Euh, nekkul loo xam ne nag dañu yóbbu itam ko xam ne kii ci wàllu loi euh, ci wàllu diinaam wala itam ngëm goo xam ne gëm nañu ko di ko ci atte di ko ci yóbbu ci wàllu diina euh, di ko ci yóbbu ci wàllu loi ngir nag dina ja nga xam ne bii moom moom la bokk ren ji ki feet gi nag mu ngi xew ci jamono bi nga xam ne itam ñu ngi màggal li nga xam ne moo di ñaar fukki at juróom seconde révolution ci réewi Gambie fii ñaar fukki yoo xam ne yi nag suñu révolution bi nekk na loo xam ne ni njëriñ bu baax a baax réewi ci diir bi itam eh, gis nañu itam ay yokkute yu bare bare yoo xam ne xew na ci réew mi fii ci bunt yu bare bare eh, ñu ngi def nag ay jéego yu am solo ci wàllu yokkute moo xam ci bunte yi nga xam ne moo jëm ci wàllu dëkkuwaay ak wàllu rawatina wàllu njàng mi wér gu yaram gi wàllu mbéy mi ak lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu sampa yi ci réew mi fii yokkute yi nag eh, tax na ba feeñ na ci fànn yëpp ci suñu réew fii dajal indi itam li nga xam ne moo ne naataange xiiwal ak kaaraange ci bépp Gambie ak koo xam ne kii newul Gambien sax te nekk ci biir réew mi fii maa ngay jotali suma ngirmande ak suma ndokkeel ci ñi nga xam ne ñoo soppa réewi Gambie di ay doomi Gambie ak ñoo xam ne tam xariti Gambie lañu ci ñoo xam ne ñu nag def nañu ay jéego am am solo ngir Gambie mën a dem ca kanam du ñu mën a euh, yoxi mug nag ci suñu yéene pour ëlbati li nga xam ne moo di Gambie mu doon nag ultra modern city réew mo xam ne mii maanaam moo daan country boo xam ne bi dafa dëppoog jamono te itam dafa doon loo xam ne lii dafa euh, nekk réew moo xam ne mi àddina si yëpp dinañu ko euh, ñee te defee maa ngay ñaax nag bépp doomi Gambia mu taxaw baax a baax nag ngir mën a jaar ci yoon yi war nañoo nekk ñoo xam itam dañoo taxaw tànk yu dëgër liggéey bu baax a baax rawatina nag jéego yi xam ne ñu ngi ko def ci wàllu fi xanal dund ba mun a dem ba dundal boppam ci loolu nag maa ngi dëgëral bu baax suma santaane ci bépp doomi Gambia rawatina ñi nga xam ne ñoo di ay ndaw ñu dugg ci wàllu mbéy mi ak manduteeg njub liggéey bu baax a baax ko defee itam mun a am li nga xam ne moo di suñu yéene ci wàllu yokkute gëm naa ni itam ne nag euh, ci bun yi ak yoon yi nga xam ne moo jëm ci yokkute yi suñu wàllu dem kanam mi réew ak suñu vision 2016 vision 2020 yëpp yàlla dina ko mën a jàppandil ci loolu nag maa ngi gën a dëgëral bu baax suma yéene pour génne lépp loo xam ne moo di ñàkk ci réewi Gambie gii waaye nag maa ngi yaakaar yéen waa Gambie ñu bàyyi nag lépp loo xam ne lii moo jëm nag ci wàllu yox euh, tayal ak itam e, bañ a indi li nga xam ne moo di ñàkk ci suñu biir ba nga xam ne dafa doon lu sax li ñu soxla nag tey jii ci réew mi fii moo di wécci suñu jikko ko defee nag e, jikko tayal ñu génnee ko sànni ko fële ko defee nag taxaw tànk yu dëgër ngir suñu réew mën a jëm ca kanam ñu mën a xam li di suñu warugal fii ci Gambie de am nañu yéene bu baax ci borom bi subhaanahu taala di ko gërëm di ko sante ci jàmm ak dal bi nga xam ne bii moom la lal ci Gambie fii di loo xam ne li itam xiwal bu réeréy la boo xam ne waxtu bu nekk war nañu ko taxaw baax aar ko bu baax a baax ngir nag ngir Gambie ak ëllëg ak siir eh, di daaneel suma kàddu nag maa ngi eh, eh, wane suma mbégte ak suma éene ci réew mi te itam di leen ñaanal tabaski ju neex a neex di leen wax ne ndéwénati boo ko moo doon kàddu yi nga xam ne moo tukkee yi